mbokk yi asalaamaaleykum mu ngi noonu ñëwaat nañ ak yéen ci li nga xamante ni rek moo gën a fës ci bis bi dañu ñëw ak yéen ci mbiru Ousmane Sonko ku ne xam na ni nag juge si fay moom moo jëloon dogal ni foofu ci tribunal bu Ziguinchor ni Ousmane Sonko mën na duggaat ci liste électorale yi ndax moom moo jëloon dogal boobu daal di koy attewaat waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di eh, maître Moussa Bokar Thiam di jëwriñ bi dénk wàllum jokkoo bi nee na nag loolee eh, du benn dëgg ndax itam juge bi daf ciy def ay erreur yu bëree bëri ndax nag juge bi du benn dogal dong la waroon jël waaye itam am na ay charte yoo xamante ni waroon na ko topp tax tey jii nii ñu bañ a àgg tey jii fi ñu àgg ak ña nga xamante ni ñoom ñooy waa DGE moom maître Moussa Bocar Thiam daal ñëwaat na ci ci waxtaan bu yaatoo yaatu ñu déglu ko moom maître Moussa Bocar Thiam. boo demee tribunal nga am fa ndam wala nga bañ fa am ndam bu fekkee dafa am beneen recours bu teguwaat ci décision boobu tant que recours yëpp jeexul décision administrative bu la e mu jël pour retirer Ousmane Sonko sur les la décision est illégale donc nous vous demandons d'annuler la décision ñoom fa lañ jëm bu fekkoon bëggoon nañ juge bi non seulement mu annulé ko et deuxièmement mu delloo Ousmane Sonko ko ak ak yelefam ci ci saa si ñoom ñoo ko waroon demander juge bi mooy un nous demandons l'annulation deuxièmement nous voulons que Ousmane Sonko soit réintégré sur les listes nonobstant un recours mooy même bu fekkee état def na recours ñu lay ñaan yow juge bi Ziguinchor un nga annulé décision bi deuxièmement nga wax DGE mu delloo Ousmane Sonko ci liste yi même su fekkee état bi agent justice de l'état def na recours recours boobu bu mu tax bañ a delloo Ousmane ordonne la réintégration immédiate Ousmane Sonko nonobstant nonobstant le recours mais même fekkee am na recours sax maa ngi lay dogal ne DGE delloo Ousmane Sonko ci liste yi loolu na nag avocat yi ñu ko demandé wuñu ko juge Ziguinchor bi juge Ziguinchor waxu ko dafa ne liste annulé et réintègre mais dafa doon wax réintègre même su fekkee sax agent judiciaire de l'État def na recours delloo Ousmane Sonko ci ay droit am comme waxu ko te laaj ko ko waxu ko defuñu ko agent judiciaire de l'État def na recours tant que recours boobu jeexul au niveau de la Cour kenn mënul réintégrer Ousmane Sonko sur les listes ñu wax ak yéen ci mbiru ki nga xamante ni euh, moom moo jiite woon euh, mairie bu Dakaaru waaye itam nekk njiital euh, taxaw Sénégal di Khalifa Sall moom nag ku ne xam na ni jamono bii mu ngi woon ci tukkim nemmeeku foofee ca Kaolack waaye nag di wut ay parrainage moom nag li mu xam ne moo di ñaaru na bu baax a baax blocage yi nga xamante ni dund na ko foofee ci Kaolack ndax itam gis na li ka jamono bi mbir yi dafa am kumba am ndey ak kumba amu nday ndax ñu ngi bàyyi lu mel ni ay amadu Ba nekk ca àll bi dox ci seen yitte bopp waaye ñoom mënuñu koo am moom sax àdduwaat na ci mbiru Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono bi wér-gu-yaramam sooxee na waaye itam li mu bëgg rek moo di Ousmane Sonko ñu daal di koy bàyyi mu dellu këram daal ci ay a euh, yi moom Khalifa Sall nag ndar na la nga xamante moom moo di tournéem foofee ca Kaolack ñu déglu ko moom Khalifa Sall te état warul affaiblir boppam te yëf ki day bëgg nuroo yëfu kumba am ndey ak kumba amul ndey mais parrainage bi munoo ko def te demoo seeti nit ñun li ñu war war def la ñuy def te dootuñu nangu nag kenn di ñu xatal wala gunda moom dama koy wax fii mu leer nañ wér gu yaram Ousmane Sonko day li mu wax tey dama ko mettitlu bu baax il mène un combat politique ngir sàmm wut défendre yelleefam ak i àqam mais damay woote rek état ak classe politique pour que ñu bañ egg ci yenn ci commune Kaolack dañuy def quelques visites symboliques à des personnalités pour rek mettre le curseur sur le militantisme mais ñun mu doon occasion pour ñun socialiste rek ay candidat ñu wax ci mbiru Cheikh Tidiane Mbodj moom nag nekkoon ab colonel waaye itam gannaaw nag ba mu simee tenue bi euh, ci élection yi ñu jëm dafa bokk ñi nga xam te ne dañoo laaj réewum Sénégal loolu nag euh, taxoon mu def ci ay sorties ba tax sax euh, démb ki talaata ji ñu di koy woo foofee gendarmerie bu Colobane ngir ay enquête moom nag bi mu li mu xamle moo di dégg na li nga xamante ni loola ko enquêteurs yi wax ndax dañ ko ne dafa war a am li nga xamante ni moom moo di droit de réserve ndax itam du yëpp rek la ñuy wax moom nag nee na bu vérifier la nga xamante ne moom moo di teg si bu dee gis na ni bëri la ko wax daal làmmoon na ak suñu sàtti réew dana noppi du wax benn yoon moom nag loolee la xam ne gannaaw ba nga xamante ni génn na ñu diglu ko moom ko leen Cheikh Cheikh Tidiane bi waxtaan lañu def man ak ñoom ñu waxtaan ci euh, sama sortie yi ma def sama génn yi ma génn ci télé yi ak yenn rajo yi euh, ñu xamal ma ne su ma demee retraite war naa xaar ba mu am euh, soixante cinquant ans juróom benn fukki ak juróom pour mën a wax ci affaire réew mi ak pour mën a wax ci affaire en tout cas pas politique seulement mais pour mun a wax ci affaire sécurité ak affaire réew mi. ma xamal leen ne man su fekkee ne dafa am ay loi yi ma tënk nañ ma ko woon euh, su fekkee ne loolu am na dinaa tënku ci loi yooyu parce que man damay respecté lépp loo xam ne euh, loi la dama koy respecté respecté naa ko pendant quarante ans donc du tey laa koy commencé jalgati. ñu jox ma ay euh, référence loi yooyu mais gisuma loi yi. bu ma ñëwee man leen dinaa gëstu. su ma gëstoo ba gis ne loi yooyu daf ma tënk danaa tënku mais su ma gisee ne loi yooyu tënku ma damay continuer ak mel ne samay activité ci loolu laa nekk nii jot naa gis benn loi bi euh, mooy loi 1971 024 di 3 mars di 6 mars 1971 boobu jot naa ko lire envoyé naa ko sama ay am di jàmm ay magistrat ak ay pour ñu xool ba xool est-ce man ni ma ko xalaatee dëppoo na ak ñoom ni ñu ko gisee waaw léegi beneen loi bi 2008 028 euh, du 7 juillet ou du 3 juillet 2008 euh, boobu laa gisagul maa ngi koy càmbar di xool ndax dina la ko mën a gis su ma ko liiree en tout cas su ma ci gisee lu ma tënk su boobaa dinaa génn ne wax sama xalaat ci euh, li am mais di xam di wax ak nag ne man euh, man damay respecté loi quel que soit nag lu mu ci amee rek mu nekk li may tënk wala lu ma ñàkk tënk man damay respecté loolu. addu ci mbirub Senelec ak facture courant yi nga xamante ni askan wi bés bu ne rek dañuy wéyandi di ko naqarlu ndax cher gi mu cher waaye itam woyofat bi itam jeex gi mu gaaw a jeex loolu lépp nag taxoon Senelec daal di taalal loxo ña nga xamante ne rek ñoom ñu association des consommateurs ngir waxtaan ak ñoom waaye itam andiwaat yenn leeral ci mbir yi nga xamante ne jamono bi moom moo daal di xew waxtaan boobee nag ña nga xamante ne rek ñoom ñoo di consommateurs yi demoon nañu waaye itam wax nañ ñu la nga xamante ni daal loolu fa jëlee waaye itam ña fa ree ci Senelec ñoom itam dégg nañ askanu Sénégal waaye itam daañu jël ay dogal ngir fexe daal a dellu si ci leen ñoom ñaari cas yi ci seen i leeral. nee nañ état moo dindi cent milliards yi nga xam ne moom la doon def ci li nga xam ne mooy subvention mais entreprise boo xam ne dafa taxaw mu ne moom am na bénéfice su quarante milliards ñun mënuñ ne dañ koy subventionné deux cent cinquante kilowattheures yi nga xam ne moom moom moom lañ proposé woon mu nekkoon koo xam ne da am frigo rek ak ay lamp léegi loolu lañ bëgg mu tranche bi nga xam ne moom bu njëkk zéro cinquante kilowatt heure la woon ñun ñoo ñaan ñu def ko cent cinquante comme léegi ñu ngi ci fi mu ne nii fii ñu toll nii nañ ko def trois cent kilowatt mooy cent cinquante kilowatt yi mu nekk léegi trois cent deux cent cinquante yi ñu def ko cinq cent ci seen proposition ñoom mooy te xel nangu ko mooy ñu fexe ba courant wàññi te euh, courant wàññeeku ba pare ñu jéem a yokk temps social bi man la ñu comme ñun ni ñu koy waxee tous les jours mooy ko bu seen rek mooy fixé dégg nañ loolu ñun dinañ si dox seen wàll ñoom aussi ñu dox seen wàll ñu dem fi nga xam ne nii foofu la ñuy décider ñu xool ñu waxtaan parce que li ma gëm mooy état moom bu mënee wàññi courant dina ko wàññi. juróomi at a ngi nii ginnaaw bi nga xamante ni bi président de la république dalal nañu. le 5 avril 2018 jooytu woon ko jafe-jafe yi ñu doon dund ci plan sur le plan de la carrière ba mu joxe woon ay instructions yoo xam ne li ñu ci jublu woon mooy réforme yi nga xamante ne bii moo doon permettre liggéeykat yi nekk ci ëttu àttukaay yi am plan de carrière ñu mën koo defar ba nga xam ne exode bi nga xam ne moom moo nekk ci biir justice bi maanaam ay liggéeykat di gàddaay di dem wuti feneen seen seen seen njëriñ ñu mën fi des ba jeexal seen carrière te mën a avancer comme liggéeykat yépp réforme yooyu nag dañ ci am ay jafe ndax taxawaayu ministre de la fonction publique monsieur Galoba moom bi mu fi ñëwee ba léegi daanaka euh, mbir mi dafa taxaw ndax euh, boo njabootee ñëpp da ngay déglu ñëpp waaye euh, ay techniciens yi nekk foofu nga xam ne jafe-jafe yi nga xamante ne bi am jànkonte nañu ak moom yëpp ci wàllu réforme statutaire yooyu ñoom ñoo ko indi ndax ñoom ñoo soppi la nga xam ne moom la ñu digaale woon ak nguur gi ba yóbbu projet de décret boo xam ne dañ koo falsifié ci conseil des ministres ba loolu moo tax ñu jàpp ne moom déglu bu mu leen déglu te dégluwuñu ñun ba xam ndax am nañ ay argument yu pertinent moom moo war a tax ñu jàpp nekk taxawaayam wàcc na ko bu yàgg amaana sax lañ ko dénk attanu ko te liggéeykat nag bu amatul motivation dafay yàq maanaam résultat yi nga xam ne moom la ñu a xaar ci moom looloo tax ñu yëkkati suñu kàddu déposé préavis le octobre bi passé ñun syndicat la te am nañu droit taxaw beneen taxawaay donte sax nag ñun li ñu gënal mooy waxtaan diisoo ba am solution wante nag su mëntu nekk li syndicat war a def pour que ay mébétam ñu mën ko jël sérieusement en compte allah pare nañu pour def ko ndax nag euh, yoon moo ñu ko may bu ñu moytuwul nag fan ñu ñuy jëm tata daka dem dikki ñu bëri ñoom du ñu daw ndax nag li ñuy ñaxtu rek moo di Euh, la nga xamante ni daal digal waxoon nañ ko ak seen i patron pour ñu yokkal leen seen i salaire euh, tukkee ci ñay dawal ak ñay receveur yi waaye ñun nag jamono bi ba tey loolee la ñu mënta am ndax nag li ñu bëgg rek moo di ñu jox leen seen ak seen yàlleef ngir itam képp koo xam ne daal yaa ngi ciy liggéey nga gën a gis sa bopp ci la ngay yëngu waaye nag bu ñu moytuwul nag ñoom ni daañu banque seen loxo daal di gaari oto yi ngir nag ba ñu fajal leen la nga xamante ni moom moo di seen soxla ñu diglu leen ñoom ñi liggéeyee ci wàllum mbir moomee situation bi fi mu toll nii dañoo tënkoon ñu nag euh, suñuy patronat benn protocole d'accord ñu ngi ko defee woon chef bi euh, yàlla dogal nag ñu waxoon ci augmentation salaire chauffeur ñu waxoon trente pour cent receveur vingt pour cent. Euh, ñu waxoon ni dañuy jublu ci contrat yi. fii ak octobre contrat yi dinañ pare. te yaakaar naa depuis boobu ba léegi am na ñoo xamante ni nag respecté nañ ko ñenn ñi yenn opérateurs yi ñoo ko respecté wul. dañoo bëgg ñu respecté protocole d' bi nañu respecté euh, contrat yi nañ ñu ko indi ni signal ko travailleurs yi. ñu respecté d' abord. lii nga xamante bi mooy augmentation de salaire yi suñu dajee ak ñoom suñu déggooyee alhamdulilahi su fekkente ni yàlla dafa dogal déggoowuñu nag ñuy la sénécence bi xamal askanu Sénégal ne ñun bañu ñu ba téewaar suñuy kaar état nag am na ci responsabilité parce que mooy mooy seetaan bu ñu jógee ngir taxaw nag na askanu Sénégal xam ne suñu rongo ñañ doon jooy ba léegi moo feragul mbokk yi mu ngi noonu di am mbégte ak kontante ci ànd bi nga ànd ak ñun saa su nekk rek ci xibaaru bis bi di leen jox dégg suba jàmm incha allah mbokk yi jërë ngeen jëf